salaamaaleykum ami cher internet waa kër Serigne Moussa Seye TV ñu ngi leen di jaar bu baax di leen nuyu di am mbégte saa su nekk di jàkkaarloog yéen di leen jaajëfal bu baax a baax ci safoo gi ngeen safoo seen chaîne bi di euh, Serigne Moussa Seye TV waaye tamit waa kër Serigne Moussa Seye di leen jaajëfal bu baax di jiital ci nuyoo beeg jaar bi tubaa Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir di ko ñaan suñu borom guddal fanam ba lépp loo xamante ne bëgg na ko liggéeyal maamam ja mu defe ko ni mu ko bëggee waaye noonu lañ koy ñaanalee xalifa généraux yëpp di nuyu kilifa diine yi ak kilifa yëpp tey nag ñu ngi fii ci Géejawaay nar leen a defaral benn surprise bu mag a mag loolu moo di lan fas yéene leen a yen dool ak ki nga xamante ne mooy seen soppe bi Serigne Moussa Seye yéen ñi bëgg xam naka lay dundee naka lay passé journée bi incha allah daa ngeen ko xam ci bu ko defee da nga ñuy topp rek ànd ak sama caméraman Abo Madiana sama preneur de son Mara ak ñoom DG ñoom ñëpp Mouhamed ñu daal di may topp rek ma dugg ci biir daal di xool Serigne Moussa naka lay yendoo naka lay passé journée bi bu ko defee ñu dégtal ko soppe yi

waaw sëriñ musa Seye moom as ndongo bu xeebu la rek bu gis jàngu xasida gi bëgg ko lool bu gis nag am bah, bah, bah, bah, a baax a baax a baax di bah, bah. bi lulu, ñu sa yokk doole bu baax a baax. ginnaaw loolu ñu bëggoon a xam ban année 28 2006. fan nga gënee àdduna. Géejawaay. Géejawaay ñu bëggoon a xam rek sëriñ Moussa ndawam na ko waaw sama ndaw ba ma nekkee xale maa xawoon ës lool ma nekk fii xaw def yi sama papa jël ma yóbbu ma Tuuba ma fay jàng alxuraan si laa demee ba ñu gis commencé jàng xas sëñ Moussa mën nañoo xam kan moo la yar waaw man maa ngi yaroo Tuuba Tuuba laa yaroo sama tànde jaan moo yar yaa ngi yaroo ci sa tànde jaan lan moo taxoon ñu yóbbu la waaw li tax mu ñu yóbbu ma damaa xawoon sikk lool looloo taxaw day mën xam ñaata at wala ban diir nga def Touba. waaw Touba def naa fa presque ñaar ñaari at ñaari at laa fa def presque. mën nañoo xam kan moo la njëkk a jàngal alxuraan. waaw ki ma njëkk a jàngal alxuraan Touba la nekk Sëriñ hmm. Mbàkke Lo la tudd. mën nañoo xam tamit kañ nga jóge Touba ñibbisi fi nga xamante ne mooy Géejawaay. waaw man ba ma jógee Touba mi ngi toll ak ay 2000 actrice or I don't ñu bëggoon a xam rek euh, Serigne Moussa euh, lan moo ko def jàngkatu xasida waaw man li ma def jàngkatu xasida moo def jàngkatu xasida ndax yàgg naa toog di ko gis muy jàng xasida a jàng moo dara sa xasida moo tax nga ci sëñ Moussa euh, ginnaaw bi nga xamante ne dalal nga ñu nga daan may taajal li nga xamante ne mooy ndékki man dina maa xiif naa nag may daal xel xelli rek le temps que ñu ñuy kuweel waxtaan ma ndékki ba pare naan sama kawele maa tamit xiif nañ ndax dañoo bëgg lekk ñoom deesee ñoom awa Madiane sëñ Mouhamed fi mu seen bët yëpp ñu ngi ko teg waaye damay ndékki eh, bu leen ma jël nag waa kaas café gi euh, ñu gis ni euh, d'habitude yan heure ngay faral di yeew waaw man su ma jàngoon ay midi rek laa. ay ah, patron nga da ngay nelaw ba heure boobu ay midi waaw ah, waaw dama kii eh ma jël dama xool mburu yi man moo ci gën a rëy bàyyi ma jël bi bisimilah léegi damay teg sama micro ngeen fay coupé ñu ndékki bisimilah kaay leen ñu ndékki waa kër Serigne Moussa Seye yëpp kaay leen ñu ndongo kii soppee sax yu nekk ñi lay seetaan Moussa man xaw ni Moussa dafa nekk Moussa yow da nga bokk ci borom ñu numéro 6 yi waaye léegi yow d'habitude lan ngay faral di dékkee boo yeewoo nii ndax dama di nga jànkat yi dañoo mën a xew jànkat yi mooy ñoo xewal xëy day ndekk mu neew ndekki paa mu neew ndekki respect yooyu yëpp mu ne ko ne Moussa petit pas du 10 léegi boo xëyee balaa ngay dem ca daara ja da ngay ndekki ba pare doog a dem ci daara damay dem foofu ba diggéen ma 10 heures waaw boo génnee dix heures doog a ñëw ndékki ci kër gi doo ko delluwaat. mais du ma foofu. ah foofu ngay foofu ngay ndékkee jàng bi naka ngeen koy dundee boo ko bëggee boolee xasida yi baa du metti. du metti. Hmm. amul ay médias yooyu noonu ay dóor. ok ah Moussa naa Moussa dañ naan kenn du ko kenn du ko dóor ndaxte saar la loolu la nit ñi wax. bu demee dañ koy gis. waaw hmm. ah, kon baax na léegi kon dañuy ndékki rek xam naa après ñu dem daara ja moo xool sëñ Moussa naka lay jàngee. ini kami budaya hafalna Allah wa atali kazu lam takama alaki fala kasufriya ya wa ya Allah liquta azmanalaj ya man la'u طلابا بن كنت فرحاه لأوليائك يا فتاه يا الله الله أني sëñ Moussa yaakaar naa ñu ngi fii ci wetu si Guédiawaye ak si nañ ci wetu daara ji daara ji soreetum fii de yaakaar naa hmm. fan la hmm. nii la waaw kon léegi dañuy dox daal di dugg ci biir ñu xool naka ngay jànge ak yaakaar naa daara ji internat la wala lan la waaw ah. kon ñu dugg ci biir daal di xool ah. waaw euh, mbokk téléspectateur yaakaar naa gis ngeen ni leen toppalee Serigne Moussa ci suba ba léegi eh, fekk nañ ko seen kër mu nekkee ngeen gis ni mu nekkee waaye ñu ànd ak moom ci yoon bi mu ñëw fi nga xamante ne fii la daara ji nekk ñëw jàng si alxuraan waaye ñëw fekk fi nga xamante ne moo koy jàngal muy Serigne Cheikh Seye Assirou doon waay moom tamit yor daara ji nga xamante ne moom la Serigne Moussa nekk dañ koy daal di nuyu rek bàyyi ko mu nuyu ak ñi koy seetaan laata ñuy seq ak moom benn waxtaan Serigne Cheikh ñu ngi lay ziar bu baax di la nuyu di la bày nga nuyu ak ñi lay seetaan euh, maa ngi lay nuyu bu baax Badjili di la ziar bu baax di ziar bu baax waa kër sëñ Moussa Seye TV di am mbégteeg bànneex bu baax ci ñëw gi ngeen ñëw fii ci daara ji dara warula ko lu dul topp ak saytu liggéeyu sëriñ Moussa Seye eh, di leen jaajëfal bu baax di nuyu ñi nga àndal ñëpp am ñoom sëñ Mara eh, ñoom Abok ñoom Mohamed ak ñëpp maa ngi leen di nuyu baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di rafetlu egsi ngeen egsi fii ci daara ji. jërëjëf sëñ Cheikh ñun ñoo gën a am mbégte waaye wax nga ko sànq ci say biir wax li nga xamante ne mooy ñëw bi fii dara waralu ko du topp li nga xamante ne mooy liggéeyub Serigne Moussa mm-hmm. xëy na doore nañ ko ci suba fekk ko seen kër xool naka la yeewoo ba naka la jàng ñëw nag fii ci daara ji fi nga xamante ne mm-hmm. euh, noonu lay jàngee ñu bëgg a xam rek Serigne Moussa euh, ndaxte naka lay jàngee alxuraan ji naka la ci nekkee jàmbaar la ci wàllu fu ci toll ndax mu ngi ciy góorgóorlu. waaw jërëjëf euh, Baye Diir ñu ngi rafetlu laaj bi ndeysaan muy la am solo muy moom nag ci moog donga yi mm-hmm. ci ni ñuy jàngee ci daara ji mooy xañ nañ ni bu ñu xëyee dañuy jàng huit heures bu dix heures jotee ñu génnaat dem wut duñu xewloo daal di duggaat bu mu di jotee ñu wàcc trois heures ñu duggaat ndax nekkul daara sax joo xam fi ñu fiy féetee comme internat wala dara. du internat waaw waaye nag euh, sëñ Moussa moom ni mu fiy ni fiy jàngi comme ni ay moromam di jàngee mm. euh, ndax yenn saay njàng mi tar lool ci moom mm. yenn saay mu mokkal yenn saay du mokkal. Mm. comme ni ko ni ko ay moromam di defee. nga xam ne daara ji dañoo dañoo am habitude maanaam boo mokkulul dañ lay pine doo génn def dem ndékki ji comme say moroom hmm. te it bu fekkee génn nañ tariwaat nga ci diggante bi mokkulaatoo dañ lay bàyyi nga yendu waaye da nga yendoo taxaw hmm. da nga yendoo taxaw moom loolu lenn la ci ay jaar-jaaram hmm. la ci ay jaar nga xam ni yenn saay nit dina fi ñëw gis ko mu taxaw muy wax ne ma yow suñu sëñ bi ngay taxaw la moom lu tax ñu ne ah moom kat dafa bokk ci donga yi hmm. na bu dee ci eh, wàllu njàngum xaside yi su boobaa loolu suñ borom dimbali na ko ci ba nga xam ni nit ñi ko bëgg ñëpp ci lañ ko bëggee hmm. bu dee ci wàllu daara jeet eh, ni ma la waxee yenn saa yi def comme ay ay moromam yenn hmm. mu mokkul yenn saa du mokkal léegi na bu mokkulul li nga koy dimbalee mooy ko nga ne ko dama nga taxaw bu fekkee ndaw la waaye suñ borom da ko teel naa def ci mom jom bu mokulul nga ne ko demal tok rek wala nga ne ko wàccal dem ñibbi rek day tax jom jooj day des waaye da koy tàmmal comme li ngay tàmmal ay moromam yi muy jàngandool ci daara ji ndax alxuraan moo yombul bi muy wàcc ci ci ci yenent bi salaa salaam suñu borom daf ko wax ni ko iqra jàngal kon lu ñuy jàng la nekkul lu ñuy dimbalee kenn waaye lu ñuy jàng la ba maîtriser ko ba man ko moom nag yàlla dimbal na ko xel mi naqarul xel mu neex macha allah te it saa yu jàngee man bu taree rek dinaa xam ni jàng na bind bi jàng na leçon bi hmm. waaye bu commencé tari rek ci biir commencement bi ci lay xam ni jàngul jàngul leçon bi xëy na foofu laay jëm sax ndax ñu bari dañuy faral di wax comme daraja ji nga xamante ne xasida yi darajaal na ko ko mu doon macha allah nit ñëpp bëgg ko ñu bari dañuy laaj naan est-ce que Serigne Moussa bu demee dina jàngee ca daara ji maanaam comme mooy star bi ñuy utiliser mooy tax ñu bari yaakaar ne bu ñëwee ci daara ji ñëwam daara daal day ñëw nii rek pour forme waaye eh, métit yi war wala bokk eh, dëgg-dëgg li war ci moom ñu ko ci donga eh, est-ce que yaa ngi koy def ci moom waaw waaw waaw kooku kay moom moom moo moo moom mën naa ne moo ci gën a mettale sax. saa nga yóotu lex bi rek. ma laa yóotu yóotu lex bi sax waaye eh, daara ji dañoo am dañoo am yar bu yar bu doy waar bu fi nekk boo xam ni moom yar bi miin na ko ndax yenn saa ma am na ma def ñu ma jëflanteeg moom. waaw yenn saa yi ma ma ma ma ma ma ma ma abbu lex bi yenn saa yi ma taxawloo ko ba mu yàgg ma ne ko pompeel yenn saa ma pompeel ba mu yàgg yenn saa ma ñëw. ma jël yar bi bàcc bàccal ci ginnaaw ñetti yoon ni ko demal nga taxaw soo ko defee nag ñi nga xam ni dañ ndeysaan dañ koy bégee bu ñëwee gis ko mu taxaw rongo ñi di wàcc seen yaram day daw su ko defee dañ may daal di jéppi hmm. fekk na loolu ma koy def lool mooy mooy li gën ci moom xañ na nit ñi duñ comprendre waaye mooy li gën ci moom ndax gone la hmm. waaye te alxuraan daa a nekk ci dënnam ndax euh, nit ñi koy gis muy dem sa di romb nit ñi ndax yenn saa yi nit romb ko mu romb nit di dox hmm. ñu koy taxaw taxawloo ñi diko jox xolo ci mbéd yi diko jox ñi nga nangam nangam fekk na manam dimanche bi di yobbu mhm. dafa doy war ba nga xamni yow mi koy jàng sax yeen say da ngay am problème door ko mhm. wa yow da ngay am problème door ko ndax yeen say mu def ben ben lu doy war xam nga dafa sik yeen say day def lu doy war loo fay da fay ya-, da fay laaj yar waye so xolé dimanche bi mu toll ci xëssi yi ak nim nim mel ak niko suñu borom def ni téréle ci xëssi yi da lay yeddaat ba nga xam ni ngir nga dóor ko sax man bu ma ko dóoree rek sës naa su ma saa yoo gisee wax naa ko moom mi sax dama koy wax nee naa ko saa yoo gisee ma dóor la rek xamal ni sës naa ndax dongo mooy mooy mooy laaj muy tumuranke yéen mooy laaj muy sonn yenn saa yi mooy laaj muy nangam ak nangam ak nangam boo laajee ñeent xale yi dinañ dinañ la wax sax ñoom ni moom ni muy dundee ci daara ji yenn saa yi dafa dafa dafa sikk day ñëw yenn saa yi rek comme su ma génnee ci daara ji bu fekkee moom moo ne ci daara ji te fàllu nekk fi bu fekke xalé dañu tari te mbokkul da ngay gis maanaam ni mi ignoré xalé da ngay jek mu yootu ben nopp xalé kaata ko jek boy kaata nga xam ki kii kaata yi yeenale kaata xalé yi di leen tumuranke di len mbugal yeen say yi mbugal xalé yi mbugal yu metti mu leer ko ni moom limi def xalé yi ni ko ko defon moom benen mbir day am nga xam ni moom moom yéene ji mu am ci xalé yi ba bëgg ñu ñu man motax mi muy ci seen nopp di len kaata motax tax fi mo genné bu ma génnee faalu moom mu leer mom rek fi dess xalé yi dañu am problème ndax xalé yi da leen dañuy leer tay ji moom seen mbir du bax ndax moom li mu xam mooy boo taree mokkul rek mooy àbb na lex bi mbaj te tër te moom boo ko defee mu jàpp ne àdduna tukki na <laughs> waaw wax nga ko sax nee dafa xaw a dafa xaw a kii mais ñu bëggoon a xam rek mu boole jàng alxuraan bi ak jàng xasida yi parfois dinay xaw a jafe ci moom ak yow mi nga xamante ne yaa koy jàngal bu waree dem programme war a ñëw jàng yow mi nga xamante ne yaay sëriñam nan ngay ni def bay gérer ñaar yooyu noonu waaw moom nag euh, euh, ci côté ci côté alxuraan bi xañ na programme yee bëri. te mm-hmm. war na ko fekk bu wàcc bu wàccuwulut mu sori mu muy waaj jeexal. Mm-hmm. ndax euh, bu dee wàllum njàng maanaam euh, xel mi neex na ci ba nga xam ni. Mm-hmm. dafay jël bind di mokkal di tari nafar di mokkal te it euh, bu dul woon programme ndax daanaka chaque jour day jàngi. boo xoolee chaque jour léegi dem na ay programme dafa saturé ba nga xam ni li muy ñëw ci daara mën naa ne semaine benn yoon lay ñëw ci daara ji yoon. teewul nag moom bu jàngiwul day jàng si ngir moom moo bëggal boppam njàng mi. te it nekkul sax njàngum alxuraan mi waaye ay lu ci mel ni tësu si xaadam ko wutlu woon di ko jàngloo hmm. ndax ginnaaw jàngul xasida la te euh, ci barab yu ne lay dem ñu koy laaj hmm. war na yenn saa muy tontoo ci xam-xam hmm. ndax da ci am solo moo taxoon ma ko doon jàngloo nanga ko del del jàng téere yi ginnaaw sa jot moytu la ngay jàng si alxuraan chaque jour bu ko defee ginnaaw ñoo dëkk ngay mën a di ci njàng mi bu dee ci wàllu njàng xasida yeet euh, ni muy répété noonu lay mokkale xasida gi maanaam xasida gi du ko du ko mokkal ba pare doo koy ci biir répété bi ci lay mokkalaale xasida gi mm-hmm. nga xam ni day diglu bu dee bu dee son bi muy répété mm-hmm. wala air bi mi moo koy jàngal boppam day fexe ba xasida gi di ànd ak son bi su ko defee mu mën koo mokkalaale xam ni mokkal gu rafet la koy mokkal waaye nag lenn tamit mi ngi ci moom mooy lu jafe mm-hmm. mooy eh, jamono yi ñu toll ku góor góor lu ci wàllu araf mooy buy jàng da ngay diglu ni muy génnee max naa yi ak maxaarijal jël yi mu leer kon moom mi ngi bàyyi xel ñi ñu koy diglu te mi ngi bàyyi xel ñi nga xam ni ñooy saytu ci wàllu baat yi ci yenn ci araab yi kon euh, ci wàllu xasida yi ak ci wàllu alxuraan bi mi ngi koy boole te amu ci benn jafe-jafe sëñ Baye Jili waaw xëy na foofu nga wax ci wàllu araf yi rek foofu laay ñëw parce que xëy na début bi ñu bari doon nañ ko ci critiquer waaye léegi eh, nit ñi ñu ngi seetlu ne mu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax loolu mooy wane ne rek mu ngi jox seen no seen di bàyyi xel li ñuy wax waaye eh, ñu gis ni nit ñi dañuy faral di wax naan dafa waroon a jàngi ba pare doo ko jàng xasida yi te yaakaar naa fii bu ñu fi ñëwee occasion la pour ñu leeral ni moom nekku rek ci xasida yi lay yëngu wax nga ko sànq mu ngi ci boole xam-xam bi ak alxuraan bi ñu bëggoon xam lan ngay wax ñi nga xamante ne dañuy dañuy wax ne dafa waroon a jàngi ba pare mooy dëgg <laughs> waaw euh, nit mom bala ngaa bala ngaa mën a def dara ndax suñ tubaa euh, dafa waxoon ya ayyuha subhanu in xiftumu xajal faqaddimu taalluman alal amal mooy yéen waxambaane yi bu ngeen ragalee kersa mbaa gàcca da ngeen xam ba noppi doo ko jëf waaye xasida yi ak alxuraan ji day benn te ñoom ñaar ñëpp la boole te it ni muy jàngee xasida yi noonu lay jàngee alxuraan yi nit ñi nañ bàyyi xel ni. Mhm. moom nekkul xasida rek mooy métier am dafay jàng alxuraan te daara ji lay jàngee alxuraan. Mhm. dafay jàng alxuraan dafay jàng xasida xasida yi nag euh, sëñ moo ko ko teg nekkul coobare boppam la moom waaye dañ ko ciy liggéeyloo mu koy liggéey. Mhm. ñun ñii di di ko saytu sax ba ci ay ba ci waajuróom yi ko jur sax xam nañ ne say sëñ moo koy liggéeyloo ci xasida yi kon ñi koy déglu jàpp ne sëñ Moussa Seye moom amul benn métier bu dul jàng xasida mi ngi jàng xasida mi ngi jàng alxuraan mhm. tey yemul ci jàng alxuraan mi xasida rek waaye dafa boole yu baree baree baree baree bari di ko def su ko defee euh, maam maanaam itte ji muy jox ji muy jox nit ñi ay soppeem ak yooyu yëpp loolu rek beneen mbir la waaye ne yëmu ci itte ji waaye dafay boole bu ñëwee bu ñëwee kër ga fi mu toll boo ñëwoon timis kër ga boo ko fekkee balaa tëdd dañuy jang seen seni seni seni seen bind maam dañu ibi seen téré alcorane di jang. ngir suba bu ñëw ci dahar ji buñ taré mëna taré taré bu bu jaar yoon fekk na ñi koy diglu dañuy japp ni Moussa Cissé comme wax mu ñëkkoon bu daan jang da daan am problème araf euh, waaye nak biñ ko ci tagaté bu gën ko ci buñ ko ci gën ko ci ñaaxaat gën ko ci dimbali buy wax sax di nga xamni ni mi euh, muy génne araf yi baraana mag muy jang xasida sax mënul génne non araf yi teewul nak ndaw la ndaw ak ci kanam tuuti téereb yàlla bi dina ko mokkal te it bu ko mokkalee du tee day continuer rek di jàng xam-xam ba noppi di jàng xasida ndax moom fi mu toll nii Sëñ Tuubaa da koo teg muy jàngkatub xasida kon faaw muy jàng xasida ñi koy diglu tamit nañ bàyyi xel ni ni muy jàngee yi noonu la koy jàngee fii ndax moom bu dee ci wàllu prononcé bu ci nekk nañ koy waxee mën na ko waxee noonu tey dur ci am benn problème tey bu dee ci wàllu njàngu xasida mi nii muy jàngee xasida ñu bàyyi xel ni yenn saay nit woo Basiru ni ko suñu musa bu bu doon jang air sangam ak air sangam ndax nit ñi dañuy ni jangum khassida euh da ngay teub rek lu la neex rek nga jang ko hmm. fekk dañ lay saytu nit ñi nañ bayyi xel ni moy suñu musa Seye ñiko yor ay wajuram dañoo dañoo juddu ci khassida mom mu juddu mom tamit ci khassida ñëw ñukoy koy ci khassida maanaam keneen koo xam ne nag ndax yenn saa yi nit ñi ay seen xañ na seen i conseils yu baax rek la yor di ko joxe xañ na wala ñu am yërmaane ci moom wala ñu gën mu bëgg a tegu ci yoon moo tax ñuy wax wax yooyu waaye dañ bàyyi xel ne suñu Moussa Seye ñi ko yor di ko répéteel ak ñi ko yor di ko tàggat ay nitu xasida lañ tey ci la ñuy dund tey ci lañ màgg ci lañ yaru ci loolu lañ foowee moom lañ xam defe naa ni ñu ko mënulu rek gisuma ni keneen war na koo mënal ci wàllu xasida yi ndax ko yor ci lañ judd ci lañ yaru bàyyi jële jërëjëf sëñ Cheikh yaakaar naa loolu nga wax leer na te téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo lay seetaan dinañ ci bàyyi xel yaakaar naa leer na ci ñëpp ñu xam ne Serigne Moussa ni mi jàngee al xaside yi noonu lay jàngee alxuraan ji yaakaar naa point boobu moom leer na dootuñu sori waaye wax nga ko sànq ci sa biir wax pour euh, jeexal rek nga ne nit koo xamante ne la dafa dafa xaw a sikk ñu bëggoon xam rek benn bêtise boo xamante ne mas na ko def ci daara ji boo xam ne heure boo ko xalaatee rek yow ay ay ree dina la jàpp comme dafa terrible nee nga day jàpp ci noppi xale yeeg di mbéj di kii naa moom taarkal waaw xam nga moom moom moom daanaka war naa ne war naa la wax ay bêtises yu bëri yoo xam ne da def ci daara ji yoo xam ni du xaaj du jeex maanaam eh, loolu eh, njëkkoon. da nga ko ci suturaale nga may ko benn benn rek. <laughs> bu yàggul rek eh, maanaam. maanaam maanaam bu yàggul rek bu yàggul rek dafa def benn yoo xam dafa ma marqué ba nga xam ne su ma ko xalaatee sama xol bi day jeex takk takk takk takk hmm. mooy fi muy jëndee ndékki. Eh, dafa am dafa am bis mu romb fi muy fi muy fi bu génnee fi muy jënd ndékki bi mu rombee rek nee na daal di daal di daal di am ñeneen beneen place bu mu romb bi mu ko rombee benn ndaw su jigéen su nekk soo xamante ni si xam nga rek Moussa dafa mën a tooñ na mu ne ko buñ jënd fii fii ñii moom safle wuñ <laughs> nee na ndaw si mooy ñëw dama ko expliqué waaye maa ngi ko maa ngi mer maa ngi ko bëgg a ree mun ma koo ree ndax su ma ko reetaanee dina xam ne dama koy dama waaye ni muy expliqué naan ñii buñ dugg ci place bi ndax place bi que liñ jaay saful nañ dem fee léegi nag ndaw si mer ñëw di ma kalaame moom bi ma kalaame ak moom beneen rakkam bi ñëw fa bi tasanteeg mu boole bay génn Moussa di tasanteeg moom dafa dajante moom ni ko mu ne ko mu ne ko boole naa leen seen sëriñ da ngeen nanga mu ne ko japonais léegi <laughs> baatu xam nga dafa mën a xam nga nit doo gis rek gis ko mu mel ne xawoon doog japonais mu rom ko ne ko japonais da boole fa ñëw <laughs> mu mel ni ki muy ki booleel moom li muy wax ñuuru ko bi mu ñëwee nag jur boobu sax maanaam jàppante nañ ci jàppante yu wóor xam ne yooyu da koy da koy def lu bëree daga ko daan def lu bëree bëri waaye bi mu nee mi ngi yeewu ci ni daa war a am yar war am teggin nga xas day boo koy jàng faaw nga am yar am teggin xañ na tamit nit ñu koy siiraan tamit nañ bàyyi xel Moussa Seye tout tànk la mm. xañ na eh, ñu bëri dabëri yenn saa yi mu def loo xamante ne si mën nañ ko ci xaw a yedd waaye eh, ñi ngi leen koy jéggalu tamit di ko jéggalu ñi nga xam ne xam nañu ci daara ji lay jàngee ndax ki la jàngal moo la mën a yar moo la mën a teg ci yoon moo la mën a xamal lan mooy eh, eh, maanaam yar ak teggin te it ñi ngi góor góorgóoru ci moom ci côté boobu kon képp koo xam ne gis nañ ni ci gis nga ko mu mas laa def leen mu jànni la wala mu yéjji la wala mu ñàkk la kersa wala mu romb la nuyuwu la ngir jàpp ne daa yëg boom yëgul boppam nday xale rek yéen ngi koy comprendre wàllu xale gi te xam ni tollagul fenn ay atam bëreegul xañ na lu muy gën di màgg rek di gën di yeewu ndax suñ borom moo ko dimbale ci xasida yi rek waaye ndax dëgg yàlla nañ kii rek ndax yi mu doon def bari na waaye jamono ji moom bàyyi na ko ndax mi ngi wormaal nit ñi ngi leen jox cër warmaal na ay magam warmaal na it ay waajuram te it jox na ñëpp cër te it gis rek jàppale ne boppam boo ko woowee par rapport bu njëkkoon nga xam ni xam man naam dafa ragaloon nit mosaan jàngu na boo ko wooyee kaay nuyu ñii day day du ñëw maanaam du ñëwee sax du fa taxaw waaye léegi day jox nit ñi gëdd taxaw saafonteeg ñoom tey di nemmiku nit ñi di leen nuyu di waxtaan ak ñoom ban ña ko boo ko message whatsapp sax mu tontu la boo ko message ci sa téléphone sax wala nga woo ko téléphone mu jël la te bu njëkkoon daawul def yooyu waaye nee lu muy gën di màgg rek xel mi day gën di ibbeeku bàyyi jërëjëf sëñ Cheikh am na solo ci lool nga xamante ne wax na ko waaye nag man am na wax côté boo xam ne dama ciy d'accord am na droit jënd fi safle ak fi saflewul loolu moom wax ndax nee nañ dafa bëgg lekk kon xam naa jaaykati ndékki yëpp xàmmee na moo ci gën a safle <laughs> waaye tamit loolu nga wax sànq rek ñu bàyyi ci xel te xamante ne yàlla mooy bindee noonu nit moom dafa mën a tooñ parce que ñun ñi ko xaw a jege sax dèjà ma ak moom rek mënewuñ ndax dafa mën a tooñ lu ne la may yàq kon yaakaar naa gis ngeen ko nii la Serigne Moussa di dundee ci daara ji dégg ngeen li nga xamante ne moom la Serigne Cheikh say seede ci moom mi nga xamante ne moo ko yor ci daara ji nii rek lay demee kon xam naa dañuy continuer rek di leen ko toppal parce que nee naa tey ñu nag moom ba guddi incha allah. يوم كبر مقتا إن الله وإن الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان نبني لي صرحا لعلي الأسباب أبلغل أبلغل الأسباب الأسباب تهدد أبلغل الأسباب آه أسباب آه أسباب السماوات أسباب السماوات والأرض فأطلع إلى إله موسى fàttali wa ila ilaahi muusee wa inni la orannahu kaasiban wa inni la zannahu kaasiban ala kulli shay'in li nga jàng mokkul nga jàng mokkul sa bindi bi da koy jàngaat lii moo la nee la saa yooyu tari rek ma xam nga wala mokulo Bindi bi da nga koy bu baax jéem hol. aja amal taxaw fee nga jàng taxawel <laughs> yéene juray ba faf mat bismil ilaahi ma fas yéene juray ba faf mat si qalbu kaawu tey ji dina jooy Cheikh Sidi Muxtaar Mbakke Balla laay jooy qalbu kaawu dina jooy Seex Sidi Muxtaar Mbàkke Balla lagi jooy jooy naa ko jooy yu xol yu foor a foor Seex Sidi Muxtaar Mbàkke Balla sëñ maa ngi lay ziar ñu ziar baax bi nan la Moustapha Moustapha ñu fekk la fi ci daara ji nga xamanteni fi la Serigne Moussa di jàngee yow lan nga bokk ak Serigne Moussa ndaye ak bay yéena bokk no di jàngandoo fi ci dara ji waaw waaye suñu nekké kër ga damay mbugal la dalay <laughs> mbugal bu ngeen nekké kër ga dalay mbol mais dégg na sank seigne Cheikh di wax seen serigne bu nekké ci dara ji bu ngeen taré mokul leen da yóotu seen nopi yow ba dula def nonu man ñepp lay def noonu kay kenn du bay di yóotu sa nopi nonu di la mbugal du bay kenn hmm ba dula ba dula la lu metti rek yeen say ñepp lay mbugal du bay kenn yow da nga war di jëngu nak kenn man mënuma jël. ah boo jëngoo mu duma la. damay damay duma kay. ku lay duma Moussa. ah, ah Moussa nag warul di def loolu yow ah mu di lay di la mugal di la teg lu métti ci daara ji. Ah, Moussa yow xanaa daa mel da ngaa xaw a yambare yow yow sëñ Moussa warul laa man xanaa gisoo ni nga ni nga toll sëñ musa est-ce ko doole. ëppoo ma ko doole de. Ah. ni mu sewee noonu moo ëpp doole. <laughs> ba la doole. la doole waaye léegi tey boo amoon loo koy wax pour mu bàyyi mbugal yi lan lay doon. man man de aw ma lu wax. Ah. ndax ndax moom de duñ nekkee kër damay jàpp te mu mbugal lañ. ni la mbugal waaye léegi nag ñëpp ñu ngi lay seetaan xam nga nga xool caméra soppe mi yëpp ñu ngi lay seetaan nga wax ko ci kanamu soppe mi yëpp mu bàyyi mbugal gi mu lay def ndax yow rakkam nga ah boo paree tudd Moustapha Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam man kay man kay mun maa wax dara isaan ni mbugal ba ma son <laughs> ah kon Moussa waaw Moustapha Musa Moussa mbugal yi la mbugal metti na e sëñ Moussa bàyyil jàmm bi ngay mbugal kii mbugal yi nga mbugal metti na bu munta wax <laughs> ah sànni kay wax dara <laughs> innamal mu'minina ikhwatun lada digal fa asliqu bayna akhwaykum mooy ndigal daana wax naan bëggatuma dégg kenn murid jili حمام اتعلم يعني Allah, Allah, Allah, Allah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah makaarimul axlaaqi Mbakke yaa nu yem uma jéem a makaarimul axlaaqi Mbakke yaa nu yem la dib sëriñ bu yaarame rafet jikko mu bare ay xame doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji waral mu bare ay xame